salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñépp di am mbégte di dajawaat gi yéen ci képpaango gi di leen masawu coono yéen ñëpp di am mbégte ci dajeg yéen fii mu toll ci ab diir boo xam ne dox na fi te déggante ñu bare baree bare ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu ànd ci lii nga xam ne moom lañu dëgmal ci ay at tàmbalee ko booy xool ci 2016 ci ñenn ñi nga xam ne bi président Ousmane Sonko bindee livre am di pétrole et gaz chronique d'une spoliation ñu raje ko en ñu bari fii ci lañu daje commencé di xeex am na si ñoo xam ne yàgg nañu ànd ak ñoom di xeex lu jiitu 2016 xeex bu yàgg ngir Sénégal baax Sénégal jàkk mbokk yi ginnaaw bi nga xamee ne gëj nañu déggante ñu bari ci ñooñu di ma envoyé ay message ñenn ñi am sama jokkoo di ma woo lu bari xew fii ñu bëggoon xay na dégg ci suma xalaat suma taxawaay ndax ànd bi mi ngi bëgg a yàgg ñuy sottantey xalaat waaye yàlla dogal ma nekkoon ci ay lël retraite ci wàllu woowu lëlu nekk ci ay mbir waaye tamit di seetaan di xool ba may temps ñi nga xam ne ñoom lañu ñu jiital jox leen bopp réew mi muy président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko ndax ñu bari dañu ne nañu leen may temps bàyyi leen ab diir xool ba xam fu ñu jëm euh, bi loolu amee am na ñu ne ma ma dem live YouTube partagé leen ko rek mu yaatu ndax du am jot bi pour mën a dem YouTube ak yooyu bu ngeen ko mënee partagé tapoté la ñuy wax je pense fii ngeen tapoté ko ba mu yaatu ba nit ñi mën ci jot ngeen partagé ko ci seen groupe WhatsApp yi ci euh, Facebook bi ak fépp fu ngeen xamee ne bu ngeen ko foo partagé nit ñi ñu mën a teewlu ba ba beneen yoon ñu def ko ci YouTube bi incha allah. ndax bii dama ko def te waaju ma ko dama doon waaj fatu ma ne naa ci def waxtaan wu gàtt rek ndax ñu baree bari dañoo sàkk woon ma indi ci sama xalaat ci xew xew jamono bii ci wàllu senegal ak li fi xew ma ne woon damay bàyyi noonu rek comme ni ñu koy defee bàyyi ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ñu doxal waaye am na si ñooñ xay na ak Akhenaton la ñuy déglu dañuy bëgg xam xalaatam seeni li ñuy jàpp ak li ñuy bàyyi dañ koy acc li ak Akhenaton di indi moo xam benn nit la ñaar wala ñett wala nu mënti tollu daal bari na si ñoo xam ne ñaari dañuy teewlu samay wax ba tax na ñaari duma moom sama bopp ngir mën a lëlu noppi tëj sama làmmiñ bàyyi ñu doxal ba tax ma ne naa ci àddu ngir ñoom ñu mën a am ci lu ñu téye am na ku naan ak ton il faut faire de sorties chaque semaine <laughs> waaw mu nga maa ngi jéggalu si ñu bare bari ñi nga xam ne xëy na yàgg nañ maa topp ba topp googu jur mu am dépendance mu am dégg nga maam ak euh, lu ci juddoo ci cofee lu ci juddoo ci tàmm ci laagu ci dégg ak ay doon ba suñu ko déggul xëy nañu ci bari dañuy ñaxtu sax léegi leen ndeysaan maa ngi ciy jéggalu ndax ànd bi moo yàgg te dëgg ngir Sénégal ba mu am lu mu jur suñu diggante gis nga kii nee na bu ñu abandonné déedéet abandonné wu ma leen ndax yéen yéenay Sénégal kenn du leen abandonné abandonné leen mooy abandonné Sénégal bàyyi leen mooy bàyyi Sénégal te Sénégal deesu ko bàyyi. moo tax léeg-léeg dañuy toog tamit noppi bàyyi ñi nga xam ne ñoom la ñu fal jiital leen bàyyi leen ñu doxal ñu di leen xool ba xam fu ñu jëm la ciy baax bu laajee ñu wax rek ñu wax bu ko laajul ñu bàyyi leen ñoom ñu doxal Euh, bu ñu demee ba gis ne am na ñu leen bëgg a faagaagal ñu leen bëgg teg ay ndëgg sërëx ak yooyee nag su boobaa nag ah ñu génn yat yi ndax yat yi ak cocktail molotov yi euh, gat sa gat sa gi xam ngeen yaa xam nga loolu nag fàtte guñu fàtte xaju fi fàtte xaju fi fàtte xaju fi moo tax ma ne keroog ba ñu ne dañuy baale moom premier ministre génn na damay baale président ne man du ma toppaate damay baale man leen ah seen wax ji teel na de damay baale du ma toppaate te ngeen a teey te def ndànk Diomaye Sonko teel ngeen a wax de def leen ndànk wax jooju nag man ah su ma leen waxee dëgg mooy neexuma la Diomaye ak Sonko ne woon nañuy baale wax jooju neexuma te ànduma ci ndax yéen xam ngeen ma nag lu ma leen bëgg bëgg bëgg moom Diomaye ak Sonko nag am na loo xam ne du ci ànd baale baale ñii de baal leen mooy senegal dootul baax daa iman bis waxi baale warut génn ci làmmiñu Ousmane Sonko ak làmmiñu Jomaay baale warut génn ci seenu làmmiñ ñoom ñaar ñooñu bis bis bu ñu ko defee daañu jaamarloog Sénégalais yi ndax nag ñun dañoo xeex ngir Ousmane Sonko am ñu dee ngir Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo ngi doon wax génn leen ngeen xeex Ousmane Sonko moo ngi doon wax résistance Ousmane Sonko moo ngi doon wax ne dañ maa bëgg a faagaagal dañ maa complot dañ maa lii Ousmane Sonko moo ñu xeex loo ba ñu xeex suñu ay rakk ki mag dee ñu suuli leen ñii ñu damm ñi lépp Macky Sall moo leen ko def ak ñi fi nekk tey kon Ousmane Sonko su xëyee na day baale te waxtaanu ko ak ñun ñi doon xeex ak moom wax jooju daf may jaaxal moo tax ba léegi mën a tekk ma ne Ousmane dama koy seetlu xool ba xam fu mu jëm moo Jomaay dégg naa mu ne baale dégg naa Jomaay mu ne day baale waaye comme man samay wax jalu muus la boo waxee daj boo ba léegi mën a tekk di leen déglu ndax ba ma déggee ñu naan dañuy baale ma taxaw tekk sama xel tey ma ne ñii fuñ jëm comme xaw ma fuñ jëm mën naa ne tekk ba xam dañuy baale wala dañuy làmbatu ndax man baale wu man mii di wax ak yéen nee nañ dañ maa mandat dare nee nañu maa financé force spéciale yi sama tura nga ca seen enquête yi ak Bara Sankaré su ma newoon cëpp Sénégal dañ may supp lekk ma waaw ñu xaj ma lu bari mënu maa dem fenn mënu maa def dara ndax lan xeex bu may xeexal Ousmane Sonko ak projet bi taxaw Ousmane Sonko génn ci loolu taxaw ne bale na te yëgoo wuñ ci loolu jaaxal ma trop ma ne Ousmane ba la ngay bal da ngay tàggoo ak dafa am ñu doon xeex pour yow xeexuñu pour nga falu dañoo xeex pour Sénégal baax ci jub jubal ak jubbanti ci dëgg te jub jubal jubbanti mënta am ci réew mi te dëgg amul dëgg mënta am te atte amul atte mënta am te amul ñu tooñ am ñu ñu tooñ bu ñu tooñ am ñu ñu tooñ il faut que ñi tooñ ñi ñu tooñ ñu teg leen ay daan parce que loolu la yoon wax loolu la yàlla bëgg loolu la sharia bëgg loolu la islam bëgg nit ñu baax ñëpp loolu la ñu bëgg yàlla moo atte mooy teg daan ci tooñ di jox ndàmpaay ki ñu tooñ kon mënuñoo boole ki tooñ ak ki tooñ la ma sànn ci àll ba ne dañuy baale loolu day indi injustice ci am ci kaw suuf yàlla bëggul injustice moo tax ba ma déggee Ousmane naan baale ak jomaay ma ajaar samay kook génn sama ay cocktail molotov ak sama yat di ko xooj bu guddee bu jant bi génnee ma weer ko ba mu wow taxaw di xaar xam na gat sa ndax baale moom bu naree am ci réew rek man damay xeex waaw li ma daj ci xeex bi xam naa ko man baale wu ma kon Ousmane mënta baale jomaay mënta baale ndax li ñuy baale ñoom moomuñu ko askan wee ko moom ñi dee tëdd ci bàmmeel yi ñu naan dañuy baale ñi tëdd ci kaso yi ñu ànd dañuy baale ñi seen tànk yi damm ñu ànd dañuy baale ñi seen liggéey yàqu ñu ànd dañuy baale ñi seen sëy yi tas ñu ànd dañuy baale ñi ñàkk seen liggéey lépp ngir Ousmane Sonko ak projet bi taxaw tey ñu fal leen ñu jékki taxaw na ñoom ñaan ñëpp kenn ku nekk da ngay baale ànduma ci d'accord ma ci ñu baale rek ma futteeku dal gi seen kaw ak ñoom ah way kenn duñu jàngal xeex projet bi du projet Ousmane Sonko du projet Diomaye suñu projet ñun patriote yi ñun ñu taxaw di xeex sacrifier wu joxe suñu bakkan bu ko laajee suñu alal suñu lépp ba fal leen ñoom pour Sénégal baax bu ñoom ñu projet bi bay bàlle ñun ñoo ko moom incha allahu rabbi daañ ci am ndam ànd ci ak ñoom wat gaal ak yégoo ba ñu soxlaa ñu naan ko Adji Sarr bu ñu futteekul woon taxaw tey Ousmane kenn waxatu ko wallahi mu neex mu naqari ñu taxaw Ousmane ak ñun tànkam ak suñu tànk bu ñu nee jóg leen ñu jóg toog leen ñu toog jóg leen ngeen dee ñu jóg dee kon Ousmane tey bu ñu demee ba ñu génn foofu lëndëm nekk taxaw ci leer bala moo wax damay baale waroon naa diisoo ak ñun ñoom bañ faloo ba léegi taxawaguñu kenn ku doon xeex ana ñu doon xeex ñu nekkoon ci kaso yi toog nañ fi ak ay toog nañ fi ak ay waykat toog nañ fi ku ne ba mu des ñi doon xeex di gàtt sa gat sa keneen ba ñu dugalee Ousmane Sonko section de recherche ñi doon xeex daj ji section de recherche pour Ousmane Sonko génn ba léegi toogaguñu ak ñëw Ousmane ak Diomaye maa ngi xaar si ñoom ñu toogal ñu dem xeex ndax xeex moo ñu may lu ñu am ñun ñun amul lépp lu ñu am ci réew mi xeex moo ñu ko may amuñu lenn lu dul xeex moo tax ma gëm gàtt sa gàtt sa di xaar ñu recevoir ñu doon xeex laaj leen ñoom ni ñu gisee mbir mi léegi ak lan mooy sama xalaat bala ñooy baale wala ñu jéggale amuñu ko ñuy baal ndax mbir mi kenn moomu ko ñu ko doon xeex ci mbedd mi ñoo ko moom nañu respecté ñi doon xeex jox leen seen gëdd bañ leen a génn ci pal gi falu nekk sa bureau yor sa climatiseur yor say auto vitre teinté ci alalu askan wi ñu xeex ñii dee nga falu nga yor say téléphone di recevoir ku la neex teg say téléphone di wax ak kii ñii di nguuru ñii dem di tukki di ñëw passeport diplomatique ñi doon xeex ñu ignoré koo ci woo doo ko jot faalewuñ leen ah ah loolu taxul woon ñuy xeex de ku fàttali la fal nag sa folli ko day gàtt na leer de ñu nag yéen ñoo ànd lu ngeen ñu def loo ñu def ko lu ngeen bëgg bëgg nañ ko fu ngeen bëgg ñu ànd fa yéen kenn du leen laal su ngeen amee naqar ñu am naqar bu ngeen amee mbégte ñu am mbégte ñu taxaw nekk ay gardien di leen surveiller projet bi jaral ñu lu de waaye waaye bu leen fi indi beneen tànki bukki bu leen fi indi beneen xalaat bu leen fi def lenn loo xam ne day tax suñu yat yi génn ak suñu cocktail molotov yi ndegam Macky Sall lañ ko def ba mu appui avant génn réew mi bàyyi leen a kiriku Abdou Mbow xam ngeen ne yéen Ousmane Sonko ak Diomaye xam ngeen ne xeex ak yéen lu yomb la ndax Macky Sall leen gën a bandi dàq leen a rey te dañoo dañ koo jaamaarloo ba ko réew mi moo toll foofu léegi Sénégal sénégalais yoo ko moom réew mi pouvoir bi askan wee ko moom askan wi ànd ak jiital leen ba kenn du leen laal moom moom pouvoir te loolu war ngeen ko xam loolu moo taxoon mën a tekk parce que Ousmane Sonko moo ñu yàgg wax nañu ku ngeen fal na ngeen topp ci ginnaaw bu leen ko may benn lu toll na tarafatal ay ni mu damay naa ne ndox ki damay sieste Ousmane moo ñu ko daan wax ku ngeen fal rek na ngeen ko ërgët xaw ma ndax xam ngeen luy ërgët Ousmane Sonko ba muy wër réew mi bëgg koo jot ñuy tëjee ko dóore ko dajji otoom ñun ñi ñoo àndoon ak moom di ko xeexal luñ ko tuumal ñu teggi ko def ki suñu alal suñu doole suñu lépp sacrifier suñu àdduna ngir projet bi jàll. moom moomu président Ousmane Sonko moo ngi doon wax ku ngeen joxati bopp réew mi na ngeen taxaw temm ci seen bëgg-bëgg mu teg ci tànkam bu ko deful fu ngeen fàq seen ay yet na ngeen ko topp tànkam seen tànk comme ni picc ak petax ak ganaar di ërgëtee jabaram bu wajee waree wasin xaw ma ndax xam ngeen luy ërgët ërgët mooy petax bu jabar ji bu petax bu jigéen ba waree nen mu tàggal ko préparel ko ba xam ne petax mu jigéen mi léegi mu nen petax mu góor mi da koy topp di ko cof di ko topp di ko dàq di ko dàq di ko dàq di ko dàq du ko may dara ngir lan ngir mu bañ nen ci àll bi dem ca ngunu la dem ca kaaf ba nen fa topp googu mu koy topp tànkam tànk gana petax bu jigéen beeg tànk petax bu góor bi noonu ñuy toppantee bu góor bi di ko cof bu jiital ko mu dem neni ca tàgg ma ndax bañ a nen ci mbedd mi tànkam tànkam tànkam bu góor beeg bu jigéen bi loolu mooy ërgëg léeg-léeg nga wax ñu ne cinq mois dafa teel léeg-léeg ñu naan may confiance mayuñu kenn confiance président Ousmane Sonko moo ñu waxoon ne bu leen may kenn confiance ku ngeen fal ci bis bi na taxaw temm ci bis bi da ngeen bëgg nag teg tànkam topp leen ko tànkam seen tànk kon bu ñu kenn jaay jikko seytaane fii na confiance ay may ko ko Ousmane Sonko nee na amul ay délai amul lu ñuy maye nee na bis ci bis bi ñu leen fale bis boobu la ñuy taxaw tem laaj leen lu ñu bëgg Ousmane na ko wax kon bu fi kenn jaay jikko seytaane naan wéy nañ leen may temps loolu loolu ça ne marche pas on est extrêmement amuñu temps xam nañ nag lu jaadu ak lu jaaduwul lu mën a nekk ak lu mënta nekk xam nañ ko waaye dañuy boole lépp teg suñu bëgg-bëgg rek ndax ñu am ko boo bëggee junni da laaj milliard Ousmane moo ñu jàngal loolu xam nga yéen da ngeen koy déglu tu ngeen ko dégguñu man lépp lu may wax rek Ousmane Sonko ma ci lu may wax rek boo demee ci wax président Ousmane Sonko da nga fa fekk wax na ko lu jiitu ma di ko wax du ma ko teg mukk loo xam ne moom nanguwu koo tegu du ma ko laaj mukk loo xam ne moom newul na na ngeen ma ko laaj du ma ko def mukk loo xam ne moom newul na na ngeen ma laaj ma def ko lu ma ko sant wala ma teg ko ko rek moom Ousmane Sonko moo ko njëkk nangu ci boppam laata muy falu comme da ngeen di déglu du dégg ay fanatique ngeen yi ci ëpp ci yéen dañuy telli telli duñu déglu duñu dégg xamuñu sax Ousmane Sonko mi ñu topp loolu mooy problème bi affaire bu du affaire fanatique affaire xel la affaire u mindset affaire u nit la kuy xalaat di xel yi kon il faut que ñu nekk ay nit gannaaw ba ñu nekkee ay gaynde di xeex ba fal Ousmane ak Jomaay dañoo war a indi suñu xel teg ko ci kaw taabal ji ànd ak ñoom tabax réew mi ci xel bu fekkante ne opposition bi am nañu xel bu ñu nekkee ay dof comme ni ñu ko nar defee nii ay Benno Bokk Yaakaar Adji Sarr ay motion de censure ay yu kenn xamul du dof-dof li ki suñu kaw te loolu man bettuma ñaata yoon laa fi taxaw def ay poste wax ne nañu dàq Abdoulaye Daouda jàll nañu dàq Aminata mbeng Ndiaye dafa am loo xam ne cin bu naree neex su baxee day xeeñ mënoo taxaw na dangay tas conseil économique social environnemental da ngay tas au conseil des collectivités locales loolu yaa ko wax ca sa campagne ba nga faloogul nga ko wax kon leer na ne danga nga koy fi jëlee programme de campagne la d'accord nga ñëw falu président de la république fal sa premier ministre amuloo majorité ca assemblée bi nga xam ne moo war a tas institution yooyu nooy def man ma bokkoon ci ne comme amuñu majorité assemblée te man xam naa waa Benno Bokk Yaakaar yépp ngay xeexee ak ñoom jomaay na noo damay nekk républicain dañuy jéem a xool ba xam xay na su ma yóbboo samay projet de loi ak Ousmane ñu ne ñoom ay républicain lañu quoi ban républicain ban républicain jomaay li nga daj ak usmaan Sonko ak ñun ñi li ñu daj ak ñi ngeen ñëw taxaw seq ak ñoom ñu nekk tey ci kujje gi ngeen na yéen da ngeen di jaay ay affaire républicain civilisé quoi civilisé fekk ay mbaamu àll yoo xam ne rey nañu nit sàcc cocaïne drogue nappaaje république de rock kenn roll du ñu ay nit ngeen naan da ngeen di jéem a jaay affaire républicain républicain république ak nit mooy xam loolu mais du ñii ànd ak Macky Sall yet rek lañu xam te loolu yéen Diomaye ak Sonko loolu man waruma leen ko wax war ngeen ko xam xeex moo leen fal yéen xeex du ay négocier du ay waxtaan du ay xeex kenn falu leen askanu Sénégal leen fal kenn laa wax ci réew mi gannaaw yàlla falu leen ñu ñi doon xeex ñoo ànd a yéen yàlla ànd si ñuy fal leen kenn sañu fee taxaw ne moo leen fal du ngeen gëm yàlla taxaw dégluñu ñu tapote ko partagé ko mu yaatu moo tax ngeen gën maa dégg parce que man léegi danga may noppi na pat parce que moo gën wax ji mën na leen bu ngeen mënta tas institution yi HCCT ak CES bi parce que loolu institution la loi organique moo ko taxawal boo ko bëggee tas da ngay dem ca assemblée ba ñu modifier constitution bi wala boog ñu tas assemblée bi am assemblée bu bees bu ñu am majorité boo xam ne mën na ko voter ñu dissoudre ko dootul amati mais assemblée bi fa nekk ñoom ñoo fa nekk am seen majorité. nga ne yow da jël sa projet de loi yóbbu fa boo xam ne day tas conseil économique social environnemental ba nga xam ne ku ko jiite mooy Abdoulaye Daouda Diallo nekkoon candidat jege Macky Sall loolu Macky Sall teg ko foofu ngeen jël ab loi boo xam ne da ngeen koy yóbbu ci assemblée ba nga xam ne Macky Sall moo fa ëppale ay député ngeen ne député Macky Sall yooyu nañ leen voté loi boo xam ne day teg ji Abdoulaye Daouda Diallo ma Macky Sall teg fële loolu naka la ko nit mën a xalaatee na lii moo ko defee dana jàll. rawatina nga seq koog ñoo xam ne ñoo doon rey barke démb tëj ay jaaykatu cocaïne ki drogue ki nappaaje seen i jéeg ki sàcc yoo xam ne lu ne def nañ ko ci réew mi Diomaye ak Ousmane Sonko mel na ñoom Afrique du Sud lañ jóge duñu ay sénégalais ñëw na cëpp ci réew mi defar seen am loi ba mu jekk yóbbu ko ci seeni i kuj seen i wujj yoo xam ne reykat nit lañ ne leen dañoo bëgg ngeen voté ñu loi bi ñu teg ji ñenn ci seen i ñoñ ñoo xam ne ñoom la fa Macky Sall tegoon loolu ban science politique la man xawma ko man xawma ko xaw ma ban science politique la bon xaw ma loolu ñoom fu ñu ko jàngee man xaw ma ko mën a tekk leen déglu xam naa du sotti gis ngeen samay pos dàq leen Abdoulaye Daouda Diallo wàcce ko wàcce leen Aminata Mbengue Ndiaye parce que xam naa ne loolu moo mën a nekk samay wax jalu muus la dégluwuñ ma waaye bañ demee ba mbëkk miir bi waññeeku na ñëw def la ma wax te mooy dàq daal du jàll ci kaw bopp sees dàq Aminata Mbengue Ndiaye loolu la tubaab tuddee mesure conservatoire boo amul pexe boo amul yaay da ngay namp réew na kenn du ko jiite ci tëju ne duma déglu kenn faalewuma kenn kenn du ma influencé kenn du ma kii tëju yee yaakaar na yow tu as la science infuse yow mën nga lépp xam nga lépp ba doo déglu kenn ku ko def ci réew daanu réew képp ku tëju na doo déglu kenn doo wax ak kenn da ngay daanu par fos foog nga wax ak nit ñi def ci àdduna bi daanu nga képp ku tëju wóolu sa bopp jàpp ne xam nga man nga doo déglu kenn kenn du jot ci yow kenn du wax ak yow ku ko def rek di nga àgg suuf bala yàgg foog ngay wax ak nit ñi mënta ñàkk may poste di wax di wax nañu tas assemblée bi jalu muus nañu mënuñoo tas institution yi CSE bi mënuñu koo tas conseil économique social environnemental bi amaguñu majorité pour tas ko au conseil bi am na Aminata Mbengue Ndiaye amaguñu waaye nag président de la république Bassirou jomaa Diakhar fay am na sañ-sañu jël décret wàcce président yi ndax ñoom ñaar kenn ku ci nekk li ngay fayee ko par weer buñ ko boolee ak sa caisse noire alal ju baree bari la joo xam ne ñoom moom la ñuy jëfandikoo est-ce que xam ngeen ne Abdoulaye a Diallo xaalis bi muy gagné ci conseil économique social environnemental ak fonds politique am chaque mois vingt vingt cinq millions. Aminata Mbengue Ndiaye vingt vingt cinq millions Aminata Mbengue Ndiaye boo demee maison du parti socialiste vingt cinq million par mois trente millions ci lay fay gardien yi nekk parti socialiste di ca fay ndoxu parti socialiste contour bi ak courant ba fay tàkk climatiseur yi secrétaire ya fa nekk ak frais yaak gardien yi yépp Aminata Mbengue Ndiaye moo leen di fay ci xaalisu au conseil des collectivités territoriales di ci tukki di ci def lu neex yow seen passeport diplomatique Abdoulaye Daouda Diallo boo demee au conseil de boo demee conseil économique social environnemental pareil cinquante millions par mois nga bàyyi leen ko ñu di ko séddoo ak seeni budget milliards doo te yow mën a goo tas institution bi doo wàcce bopp yi dagg teg fee dañuy politique li ma gën a naqari nag mooy booy wax ñu non ñun ay républicain la ñu on est des technocrates euh, duñu defuñu lii parce que dañuy parti pris duñu jël suñu parti gis nga wax yooy ngeen war a bàyyi bàyyi leen di yemale ñi doon xeex ak yéen ak ba dee fekk leen ci ak ñi leen doon rey bàyyi leen seen loolu loolu complexe la ngeen génn ci assumer seen féete ñi ngeen àndal démb ba dara dul dara yoru leen di 10 francs yi ñuy génn seen xaalis di leen cotiser ñi leen di jàpp ñuy xeex di dee mënu leen a falu di leen yemaleeg ñi nga xam ne ñoo leen doon xeex di leen rey loolu képp ku koy def doo yàgg ci nguur te da ngay war sa askan assumer leen seen ay position ñi àndoon ak yéen di xeex mënu leen leen a yemaleeg ñi leen doon xeex te ànduñu ak yéen ku ko def defoo lu yoon man maa ko wax man Akhenaton républicain c'est bien être républicain c'est être respectueux des lois mais yow parti moo la fal ay nit ñoo la fal parti politique majorité moo la fal nga ñëw toog ci réew mi bëgg a yebale ñépp ci wàllu euh, neutralité mais loolu boo ko defee da ngay nit dafa am ñu mu àndal da koy assumer ñi nga àndal ñu fal la boo waree xeex ñooy xeex ñooñu mënu leen a yemale mu am ci àdduna bi yëpp c'est la loi de la majorité c'est la démocratie il faut que mu leer ñuy waxante dëgg parce que Sonko moo ñu jàngal ñuy waxante dëgg amul layam layameeg wër-wër loo moom Ousmane Sonko ci digg bi lay jaar donc ñun tamit dañu war a am habitude di jaar ci digg bi li ñu war a wax dëgg ci opposition bi ñu wax ko li ñu war a waxante dëgg ci suñu biir ñu wax ko parce que dëgg boobu moo taxoon ñuy xeex ba nit ñi dee. ma ne leen dàq leen ñii ci institution yi ba keroog ñuy am majorité ci assemblée bi tas institution bi parce que ci programme bi la bokk léegi nag ñoom ñu ne dañuy jël projet de loi. yóbbu ko ci assemblée ba nga xam ne Macky Sall fa ëppale ay député pour que Macky Sall votel ko loi boo xam ne day rey ay doomi Macky Sall yu fi Macky Sall bàyyi kooku Macky Sall du ko def lu tax mu koy def nañu bàyyi par parloo ak naxante ak tappale xam liy dëgg waaye comme ñoo far buñ ko fi wax déedéet loolu moo yàq réew mi moo tax Sénégal mënut a dem nañuy waxante dëgg te Ousmane Sonko dëgg la bëgg ah naa ko ba tàyyi muy wax ci dëgg lay dox ci dëgg la bëgg ñu di ko wax dëgg bu ñu ànd moom mu xam ko bu ñu àndul ak moom moo xam ne ànduñoo ak moom ci yenn choix yi yenn décision yi muy jël loolu da koy dimbali mais lu mu def ngeen tàccu bu duggee ci pax mi ngeen tàccu bu ngeen fekkee ñu di ko reen di ngeen di tàccu loolu musiba la Il voulait tout simplement jouer avec eux. La dissolution de l'Assemblée. On ne joue pas avec des animaux. Boy jouer, dangay jouer ko am xel. gis nga jouer xel a koy def doo fekk ay mbaamu àll ngay jouer ak ñoom il faut arrêter ça ñii duñu ay nit te loolu Ousmane xam na ko Ousmane li mu daj ak Diomaye ñoom li ñu daj ak ñi ngeen naan da ngeen jouer mais vous jouez avec qui dugg ci àll fekk gaynde guy fadaate ngeen ne da ngeen di foo gaynde bi mais yéen da ngeen di xaru wala lan faut arrêter ces langages oui Ousmane stratège Diomaye dañ doon jouer dañ on ne joue pas avec des animaux avec des lion affamé dans une forêt arrêté ñii xamuñu ay négociation xamuñu ay waxtaan duñu ay nit civilisé wuñu civilisé wuñu ñii civilisé wuñu yéen xamuleen loolu yéen fi ngeen jaar ñii ba léegi xamuleen ñi ngeen ko seqal yéen xamuleen ñii ba léegi kon yéen ba léegi xamul leen ñi ngeen ko seqal réew mu normal ñu normé ko normaliser ko dégg lu de réew mu normal ñu normé ko normaliser ko ma répété ko réew mu normal ñu normé ko ko jàpp ngeen ne assemblée nationale réew moomee ku ñuy wax Abdou Kirikou Mbaw mën na faa nekk président groupe parlementaire bay menacer les institutions di wax ay motion de censure réew mu normal normé normalisé kiriku Abdou mbaw war na faa mën a taxaw di empêcher les institutions de tourner rond ngeen toog fii yéen di wax naan oui dañuy zone sur huit jaay ay affaire stratège mais yéen ku ngeen di nax kan ngeen di jaay stratégie en politique kan man bokkuma ci bu man yooy seen yooyu nekkuma ci nekkuma ci arrêtez vous dormez moi je dors pas da ngeen nelaw man nelaw ma Abdou Mbow bu ñu demee tey ba Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye seen interlocuteur gi Sénégal tey Abdou Kirikou mbaw la c'est une catastrophe c'est une honte Ousmane Sonko di wax Abdou mbaw Kirikou di wax vous vous rendez compte ngeen yaakaar ne réew moom réew mu ay nit di yeewal réew mu normal la may wax ñu naan ay da ngeen di jaay xel di teg xel arrêtez Abdou Mbow gis ngeen ko ci photo bi kii prématuré bi xool ko xool ko c'est un prématuré men day ñàkku ci Abdou Mbow moo téye réew mi motion de censure Ousmane Sonko di yëngu fu la Diomaye def ay décret kër kër Abdou Mbow kiriku kii daggitu nit kii kii ngeen naan da ngeen ay xel da ngeen jaay affaire xamul Macky Sall ki leen fi bàyyil kii Abdou Mbow kiriku vous rendez compte génn réew mi c'est normal may wax ngeen may jaay muus ay Sonko yéen da ngeen di topp Ousmane Sonko lu mu def baax na Diomaye lu mu def baax na yéen lépp da ngeen ko bëgg layal te lay bi du am xel du ngeen ko def ci science arrêtez ça foog ngeen dimbali Diomaye dimbali président Ousmane Sonko ci bu ñu defee loo xam ne jàpp ngeen ne du lii ngeen ne lii du ni loolu ñëpp def barki démb gis ngeen ñëpp commencé jóg la ma doon wax di ko yuuxu ay ci ay ci ñëpp bañ mais ba ngeen demee ba sës ñëpp commencé jóg di parce que nag njàq saa ngi doog a baax léegi dem ngeen ba gis daal ci kaw miir bi xam na ñii duñu ay nit léegi ngeen ko soo gis man dama koo xam démb ak bërki démb ñii man considéré wu ma leen duñu ay nit sequma ñoom dara yat kel ak cocktail molotov kese gat sa gat sa xam naa leen la ma waxoon tey ci ngeen ñëw dàq Abdoulaye Daouda Diallo dàq Aminata Mbengue Ndiaye commencé fas yéene xeex ak ñoom ñëpp wax affaire yi yeex xamuñu fu ñu jëm Ousmane Sonko génn na fi ñetti yoon ñeenti yoon dañuy annoncé bu ñu defee audit yi gisuñu dara ba léegi gisuñu dara bés bu nekk mi ngi annoncé man léegi bu annoncé damay taxaw di xaar nee na ah, tey tamit génnaat nañ ne fii ak semaine maa ngi taxaw di xaar xool ba xam bu yàggee dem ba da ngaa ne fii daal am parce tamit dafa am fu ñu jógee dañu am parcours am psychologiquement lu ñu marqué xeex boo xam ne mais loolu bu leen yaakaar ne dañ c'est effacé mi ngi suñu bopp yi am cette soif de justice d'action concrète parce que dafa am fu ñu jógee fu metti am na ay jamono fii kenn du wax ki taxañ na Sénégal gépp dugal ci biir pot ñun ñoo fi nekkoon ñun diaspora bi ñoo doon yuuxu bu dul woon diaspora bi euh, lambay ñaaw ba ñu xoolee ba gis na Macky taxañ na Ousmane Sonko sànn ci kaso bi jomaay ci kaso bi ñi mu takkal leen ay bracelet électronique kenn du yëngoo sur Sénégal gépp Macky Sall jël leen dugal leen ci potu meew ñu ne musiba am na diaspora bi jóg taxaw bu ñuy xeef di xeppis Macky Sall di fi teg dictature goo xam ne cent ans la fi toog ñu bàyyi la ñu neex lañ naqari yëpp taxaw mayu ñu ko jàmm di xeex ak moom di xeex ak moom di xeex moom ba àdduna bi yëpp jóg ànd ñun ci xeex bi loolu moo ñu indi fi tey kon dañoo am jaar-jaar am fu ñu jóge loolu Ousmane Sonko bu mu ko fàtte Diomaye bu mu ko fàtte lu ñuy def na seen xel nekk ci loolu dafa am fu ñu jógee am lu ñu daj loolu ba léegi mi ngi daw ci suñu xel yi nekk suñu bopp yi di daw ci suñu deret bu ñu ko kenn xeebal képp ku ñu ko xeebal wala nga sàggane ko rek yaa ngi def loo xam ne xamoo ko yaa ngi tooñ photo bii ngeen la kan la Abdou Mbow Kirikou mu téye Sénégal tey naan ay motion de censure di yëngal nguur gi Jomaay Sonko kenn ku nekk di bind ku nekk di wax kiriku mii la fi Macky Sall bàyyi Macky Sall ngeen foog ne bu doon nit la ku respecté sénégalais ku respecté Jomaay ak Sonko ku respecté institution yi dana xool lu toll ne Sénégal mu jël Abdou Mbow kiriku mu daggatuñu kii mu mel ne cuuj buy soog a fett ci nen mu jox ko assemblée bi muy buuma ko bumbi di tëkk ko di bëmm ko yu kenn xamul kiriku nga xam ne un centimètre lay mesurer Abdou Mbow mi ngi nii muy lëmbe réew mi. ngeen toog fi naan oui dañ doon jaay affaire yu science politique affaire yu stratégie affaire yu république affaire yu patati patata daggitu nit yi ngeen di jaay affaire yu science bi daggitu nit yi ñii nga xam ne man sax damaa xeeb sama bopp ci ñoom ñii fa il faut être sérieux quand même il faut être sérieux dans la vie ma toog jàpp sama njàmm na pat comme gisuma lu ma xam ma ne pat te ñu bari mënoo wax ak ñoom sooy wax ak ñoom duñu comprendre da ngay wax guy ga ñu am Dakar ga parce que duñu dawal seen xel c'est des fanatiques voilà léegi nag la ma doon wax di ko bind di ko wax di ko wax ñu bañ ñu may tànqam lu léegi def nañ ko waaye nag dañoo ñëw ba mbëkk ci miir bi teg seeni loi ñu rejeté ko ñu askan wi commencé jóg maître Clédor Ciré li avocat Ousmane Sonko di kaas lii raam dafa yeex lii kërëb kërëb askan wi yëpp commencé di riir Ousmane Sonko xam na askan baa ngi commencé jóg di fipp di wax parce que xaar baa ngi bëgg a yàgg te xamuñu jëm ñu soog a jóg lii la de ñun askanu Sénégal li ñu bëgg ñoo koy defal suñu bopp du Ousmane Sonko ñu koy defal du Diomaye ñu koy defal ñooy am suñu fulla am suñu fayda àndandoo xam li ñu bëgg di tegandoo ak a yëkkateendoo ba ñu ko defee autour de Ousmane Sonko am nañu ndam ba ko defee contre Macky Sall fagagal nañ ko bu ñu ko àndee taxaw sa tànk sama tànk li ñu bëgg ñu yëkkateendoo tegandoo Sénégal gi ñu bëgg moo fi am ci nii ak ci ne. loolu mooy dëgg bu ñu xeeb suñu bopp ci réew mi Ousmane ko wax na ko ba tey ay sénégalais yu exigeant sénégalais yu xam li ñu bëgg di ko kaas. teg seen tànk nag taxaw temb du ñu may kenn dara man Ousmane Sonko bu leen ma may dara jomaay bu leen ko taxaw na fii na jomaay dañ koy fal gannaaw suba àjjuma la ko wax ci waaye nag buñ ko falee ba noppi dañuy topp ci ginnaawam bu defee lu ñu xamul ñu jàpp ci nopp bi xëcc yéen a ngi koy déglu waaye déglu leen ko yéen a ngay tàcc ku ñi di supp jalañu parce que ay fanatique ngeen da ngay déglu exigence boobu la ñu Ousmane Sonko ji dañu ci wax mais nag kii exigeant mooy ki xam mais ki xamul mënta exigeant ki nga xam ne moom fekkee ko ci bool day toppaat rek di tàccoo ko fotosu kooku yëgul lu xew kooku moom boo waxee mu saaga la parce que ki xam moom du fotosu du tàcc day xool di natt di càmbar di bëgg ak muy bañ di wax di jubbante ka joyanti kookoo xam Ousmane xam ne moom bu fekkee ñuy way muy fotosu ma ngay fëtëb ak moom yëgul lu xew kooku moom te ñoo ñoo dañoo bari am réew lañu yore nekkatuñ ci mbedd mi ki xeex état lañu yore am ay njiit Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko ñu war a jël suñum xel boole kook ñoom seeni xel jël suñu fit ak suñu doole boole kook seen doole ñu joow Sénégal mu dox ci dëgg ak waxante dëgg ak nawlante te bàyyi xel ci ñi fi jóge dee ak ñi sonn ba ñu agsi fi tey respecté leen jox leen seen jël may wax ne kon gannaaw coow li fi am projet de loi bu ñu rejeté waa benn boo ko yaakaar ñoo toog ci assemblée ñu dàq li président bëggoon deful luñ ko ko dàq ko président soog a xaatib am décret dàq président Abdoulaye du jàll ca CES dàq Aminata Mbengue Ndiaye ca HCCT ma ne bingo lii président mujjee man loolu laa doon njëkke président dafa bëgg a élégance bëgg a wan ne moom républicain la bëggul ñu jam ko mu ne au lieu may dàq da Diallo ak am Aminata Mbengue Ndiaye naa jéem a tas institution bi njëkk ci assemblée ba jéem koo taslu ñoom ñu ne ko duñ ko tas xam gi ma xamoon na ñoom duñ ko tasal li mu bëgg moo taxoon ma naka daggal bopp yi ca njëlbeen wàcc daanoo ci gën a gaaw politique science la soo mënul anticiper la psychologie de ton ennemi sociologie la ci ngay jaamaar loolu boo mënta dugg ci boppam yulli bopp bi teg ko ci kaw taabal ji xam ni muy xalaatee xam mindset am xam ni muy doxalee boo ko mënta xam bàyyil politique dem ca jàkk ji di nodd benn ñaareel bi xam gi nga war a xam sa noon bi li nekk ci bopp bi li war a jariñ mooy nga di ko jekku di teel a yeewu bala mu laa dóor nga xët ko politique doo xaar ba ñu dóor la ngay fayu da dangay dóoraate politique doo fayu dangaa war di dóori tel kuu bu njëkk bi nay jóge ci yow waaye bul toog na yàcc na yasar ba ñu xët la ngay ngay dàqaate nga di xataraayu pour fayu képp ku nekk ci politique di fayu bay boo nga bàyyi politique politique du fayu politique yow fexeel ba day njëkk a xët wu njëkk jóg na na jóge ci yow tell ji moom bu mu dal ci sa kaw waaye na jóge ci sa loxo bii waaye toog ba ngi ne tell dal ci sa kaw ngay fayu loolu képp ku koy def ci politique bokkoo ci politique góoma loolu kon la ma waxoon ne nañ ko def ñu may tànkam lu moom lañ mujje man nag su ma nekkoon seen place duma ko mujje dama koy njëkki ndax ñi ma ko seqal duñu ay nit duma leen ji parce que xam naa ne xamuñu teraanga ay baadoolo lañ léegi nag ñu ngi ci gatsa gatsa xam ngeen na gatsa gatsa nag man duma ko sànni ndax damaa xam ñi ma ko seqal wuy yeeg bandi yeeg saay-saay yi gatsa gatsa dong la ñu xam gatsa gatsa moo fi jëlee Macky Sall gatsa gatsa moo génne Ousmane Sonko ci kaso bi bu ñu xeexu woon taxaw Ousmane ci kaso bi lay dee moo Jomaay ba mu génne wax na leen ko wax na leen ko xeex bi ñuy xeex moo tax ñëpp taxaw communauté internationale bi ñëpp taxaw teg pression bu toll ne suba la bisu pénc ci kaw Macky Sall damm loxoom loolu ay stratégie yooyu dafa tax mu ñu am ko xeex rek sëñ Sambay Paraphraser Victor Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Victor Hugo, paraphrasé par Serine Sambay, l'éminent intellectuel et savant. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. waaw ah, Victor Hugo boo ko wax Serigne Sam Mbaye baamtu ko nee nag ñii dund mooy ñiy xeex képp ku mënta xeex bokkoo ci dund bi da nga fii fekkee la ci boole waaye sa amoo fi place génn fi àdduna bi xeex la ku mënta xeex rek doo dund xeex rekk fi am kese sëñ Samba ko waxoon jëlee ko ci Victor Hugo ceux qui luttent sont ceux qui laa gëm man ci loolu laa nekk ci laa ma a nekk mën naa nekk nag diplomate man boo seddee ma sedd boo nekkee nit ma nekk nit man loo ma jaay ma jënd ko man loo ma jaay ma jënd ko paaka ñaari boor la boo seddee ma seddu guy boo indee xam-xam ma indi xam-xam boo indee diplomatie ma indi diplomatie waaye boo indee kalachnikov ma indi kalachnikov man kenn du ma jam naa ni ah. kenn du ma jam naa ni leen xool léegi comme gassa gassa bi ñëw na léegi leen xool leen fii ak semaine ñoom ñëppay lemu dañuy lemu ak seeni kook raxas seeni leget ak seeni tànk dañuy léegi ñu daw dugg seen ngunu yi ñoom ñëpp parce que ay mbokkat lañu ay tàppet lañu kenn du yëngu ñun ba ñu nekkee ci mbedd mi yoruñu dara amuñu pouvoir amuñu état ñoom ñu yor lépp ñun ñu nekk ci mbedd mi ndegam booba lañu amoon fit di gat sa gat ak ñoom <laughs> yéen da ngeen di nelaw ñun ba ñu nekkee ci mbedd bi lañ doon xeex ak ñi yor lépp tey ñu ñëw ba ñoom la ñu yoroon ñoom lañu ñu yoroon ñu foqati ko ci ñoom mi ngi suñu loxo muy pouvoir boole ko fit wa ñu amoon ñun ca mbedd ma gatsa gatsa ba ñun dañoo yor suñu gatsa gatsa am pouvoir ba noppi di yolosi yolosi ñoom suñu gatsa gatsa nga yoruñu ko de amuñu fit benn ñaareel bi ñàkk nañu pouvoir bi ñun ñu ngeeg suñu fitu gat sa gat sa boole ko pouvoir ñaar yëpp a ngi suñu loxo ba noppi ñuy yolos yolos mel na dégg nga maam ñu tawte man loolu ma metti loolu ma metti nañu takku jóg defaruwaat diisoo àndandoo bañ a xeeb kenn ñi yor ndomba tànk yeeg ñi ci biti ngeen di waxtaan di diisoo di laayante biir di dimbalante te bàyyi xeebaate bi ak gaaw a siiw gee gaaw a fuuy gi kuñ ci fal nga nong nong yaakaar ne du commencé siib kaw kaw yoo xam ne baleen seen yooyu te ngeen respecté askanu Sénégal patriote yi xeex xeex bi attention de lii xew nii musu fi am dañu nekk dans une révolution nekkuñu ci politique li ñu def moo raw politique te ñi koy xeex mooy la base kon ñi nekk ci kaw nañu respecté ñi nekk ci suuf tey bàyyi xel ci ñoom wàcce seen bopp kon ba président ak premier ministre Ousmane Sonko jomaay ba ñu defee la ñu jàpp ne loolu lañu war a def ñu gis ne loola duxut mooy ñu voté leen loi boo xam ne loolu léegi day tax ñu mën a def li ñu bëgg def ci waa kër Macky Sall yi ñoom it ñu bañ ñu dellu si ca la ma leen waxoon mooy dagg bopp yi am na tam mbéy jaay tey dagg nañu boppam wàcce nañ ko wàcce nañu ab lay daal da jàll loolu c'est des mesures conservatoires et c'est très bien di ci féliciter le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ci prési di ci féliciter aussi le premier ministre Ousmane Sonko man loolu laa mas a gëm dama ko mas a wax waaye nag du man maay dogal maa ngi yéen ànd ma leen di jox sama xalaat publiquement parce que mënu maa jot ci yéen. ma di ko wax su ma xalaatee ba jàpp ne moo gën ci li ñuy xeex moo gën a rafet moo ëpp mucc ma wax ko ba ñëpp dégg ko ndax jotuma ci sonkoo jotuma ci Jomaay fii laa koy waxee oo ba feneen fu ma ko waxee jotuma ci ñoom waaw wax buñ ma déggul it may wax rek di répété rek répété répété répété répété rek parce que jàpp naa ne mooy li gën alhamdulilah sant yàlla ba loola amee tey léegi mu am ay conséquences conséquences yi mooy Abdou mbaw Kirikou mi ngeen gis ci photo bi président groupe benn Bokk Yaakaar nee na day def day déposer projet de motion de censure à l'Assemblée xëy na tey xaw ma démb déposer ko au bureau de l'Assemblée nationale te loolu mu bëggoon def muy motion de censure bi su ko poussé ba mu sës gouvernement wu Ousmane Sonko day daanu amul dem dikk démb la ko déposé su ko poussé gouvernement wu Ousmane Sonko day daanu parce que majorité bi ñoom am nañ ko pour daaneel gouvernement Ousmane Sonko Ousmane Sonko xam na ne le premier ministre xam na ne bu demee assemblée gouvernement am day daanu xam na ko waaye léegi naka la premier mën a xamee ne bu demee assemblée ñu motion de censure daaneel gouvernement am ba tax demu fa mu bëgg léegi def projet de loi boo xam ne. day day wàcce institut ñaari institution jox ko ñi nga xam ne ñoom ak ñi ñu war a wàccee ñoo bokk benn parti wala coalition muy benn bokk yaakaar nga jox leen projet de loi boo xam ne dangaa bëgg ñu voté ko te yow xam nga ne yow du jiitu projet de loi bi boo fa demoon def sa motion sa déclaration de politique générale ñu motion de censure la nga daanu Ousmane xam na loolu moo tax comprendre wu ma ñoom naka lañ mën a jëlee projet de loi di ko jox assemblée pour mu leen koy voté pour ñu wàcce ñaari institution yi tout en sachant que majorité boobu di ko voté majorité boobu mi ngi taxaw di xaar Ousmane Sonko ñëw def DPGM ñu wàcce ko daaneel gouvernement bi <laughs> xanaa politique science la da ngay da da da ngay xalaat di def say recoupement di analyser di def say synthèse di tirer ay conséquences lii waa Benno Bokk Yaakaar def loolu mooy logique li ñu rejeté projet de loi Bassirou Diomaye Faye bi loolu mooy logique mooy li war am li ñu doon jaaxal mooy ñu votel ko ko su boobaa daañu wax ñii lu leen dal opposition buy ànd ak président di ko votel paaka bu muy rendee xar yoo xam ne xar yi ñoom ñoo ko moom loolu nit du ko def mais li ñu ñoom ci seen logique la ñu nekk dañu nekk ci opposition di résister bañ a dee wax nañ dëgg du ñu daas paaka di ko jox Diomaye muy rey ñenn ci ñoom wax nañ dëgg man loolu su ma nekkoon seen place lool laay def on est en science politique su ma nekkoon place bi Benno Bokk Yaakaar nii ñu def lay def parce que dëgg yàlla moo ko moom bu ñu fi nekk di naxante comme ñoom ñi ngi ci seen rôle di résister pour exister mais ñun dañu war a nekk suñu rôle di teg ay pexe pour rey leen ñoom ñu dee loolu mooy dëgg loolu mooy politique mais nekk fii dans la complaisance di naxante nañu bàyyi yooyu tey wax les choses léegi nag ñoom dem nañu ba sës ñoom am nañu defet ñun am nañu defet ci ñoom démb bi loi bi ñëwee ñu sànni ko loolu défaite la ci ñun <coughs> ci kaw défaite boobu nag ci la ci la exécutif bi président de la république ak premier ministre décidé wàccee Daouda Diallo am Aminata Mbengue Ndiaye c'est très bien mais moom nañ ko jiital mais defuñu ko bref léegi nag Abdou Mbow dugal na proposition de loi de motion de censure pour que Ousmane Sonko ñu convoqué ko mu ñëw ñu déglu ko su paree ñu vote vote de confiance pour daaneel gouvernement parce que am nañu 83 députés léegi xam bi Ousmane Sonko xam loolu premier ministre président Diomaye xam ko ñoom ñaar ñu diisoo ci ba xam ne bu bu ñu convoqué Ousmane Sonko en procédure d'urgence Abdou Mbow démb de dugal na ko démb jamono bii may wax ak yéen nii bureau assemblée ñi ngi réunion tey ji À 17h30, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mam Diop, convoque le bureau de l'Assemblée nationale. Les membres du bureau, ce qui est pareil, nous avons réunion, l'Assemblée, au quatrième étage, parce que tout s'accélère. C'est normal, on est en politique, c'est la démocratie. ku nekk da ngay bëgg rey sa morom loolu bu fi kenn c'est pas l'église ndegam jàkk yi sax nit ñi dañuy reyante Seydina Omar dañu ko rey Seydina Ousmane dañu ko rey oui Seydina Ali dañu ko rey Hassan dañu ko rey Hussein dañu ko rey dañu naan ci diine gi la ñuy reyandoo ci biir jàkka yi di du rey na jaasi waxantuma la ak politique il faut pas fi nekk di rêver on ne rêve pas diine gi sax dañu dañoo ji yàlla gi dañu dañuy reyante pour ak pouvoir ak jiitu waxantuma la ak politique kese. ñuy reyante nag da fexe ba yow bu la kenn jekku da ngay faggu fagaru teel a jóg bul nelaw ba yàndoor fuñ la fekk na nga pare lii la de foo nelawee ñàkk nga. ñu tàppate ko mu yaatu ñu tàppate ko mu yaatu ma terminer rapidement jàpp ci rek jàpp ci kon léegi nag Ousmane Sonko premier ministre génn tey. en marge du personnel primature bi mu doon recevoir tey di wax ak ñoom ci seen ay doléance ci la defee live génn ci cadre boobu sax ba wax actualité politique bi wax li nga xam ne moom lañ nar a def dàq gi ñu war a dàq am na tam léegi njaay daaw ci àll moom euh, cadre bi mu doon waxee biir primature rek personnel ba ak seen i génn na ca loola moom ba extérioriser ko ba wax ci tontu lu nekk ci mbedd mi li ci biteeg politique bi il a fait une pierre plusieurs coups parce que l'actualité est tellement brûlante les patriotes sont tellement fâchés patriotes dañoo mer mer goo xam ne ndax rakkale diñ jot démb maanaam humiliation bi ñu leen humilié démb ci assemblée bi dafa yëkkati ci patriotes yi mer gu tar goo xam ne boole kook ñi nga xam ne ñoom ñi ngi xaar justice di xaar reddition des comptes di xaar ñi ñu war a jàpp ñoom ñëpp ba ci avocat Ousmane Sonko yi maître Clédor Ciré Ly def ci benn article bu taxaw ne nañu taxaw gaaw accélérer lii parce que lii kenn xamul lu mu jur ëllëg attention doon xeex bu demee dem ba jàpp ne moom lam doon xeex kat wurta am njariñ ndax ñii fi fal waxuñu ci ñu ci yàbbiwuñ ci bu mu jël ab diir bu yàggee askan woowu day ko dal ci sa ko te loolu mooy dëgg dañuy xeex pour dara xeexuñu pour sànni xeexuñu pour eh, yàlla baax dañoo xeex pour dëgg dañoo xeex pour améliorer condition de vie Sénégal ñun dañu xeex pour defal suñu dund xeexuñu pour fal Sonko ko jamaay ñii nguuru de dañoo fal jonkoo ak jamaay xeex boo xam ne dañoo am ci ñoom yaakaar ne daañu tabaxal suñu Sénégal gi bañ mën a dund dund gu nooy lii moo tax ñuy xeex koo fi gis muy xeex da dund gu baax la bëgg topp gi ñu topp Sonko Diomaye dañu ñoo dig defal dund defal suñu dund gi dund gu baax bis bu ñu demee ba xam ne nekkuñu ci ñun li ñu nekk ak li ñu yaakaar ci ñoom nekkul dañuy fàq suñu ay yet duñ leen fi bàyyi ñoom xam nañ loolu sax. patriote yi mer man li ma ci jot ci ay coup de fil kenn xamul man baromètre laa man ndax damay wax ñu bari di ma déglu man damay déglu ñu bari ñu bari dañ may woo di ma envoyé message kon man nattukaay laa man man suy bax xam naa ko suy ñeer xam naa ko suy xëm xam naa ko cin li fu mu toll rek xam naa ko parce que ñu bari dañ may woo épicentre laa man est man entité de baromètre laa man nattukaay laa man ak Akhenaton moo tax moo tax su may wax bu ko kenn sànni parce que ñu bari dañuy ñëw di ma wax damay sentir damay def ay sondage man su ma waxee rek am na fu ma ko teg Ousmane Sonko xam na loolu moo tax tey bi muy wax ak personnel yi mu profité walla ci wax ak patriotes yi annoncé leen loo xam ne day dal ci seen xel décision bi ñu jël tey dàq daaw da jàll dàq am na tam mbéy jaay pour defal ñu la pour defal à patriotes yi la pour ñu dal pour ñu am benn yax bu ñuy seeñu ndax xam ñoom xam nañ ne ñun mer nañu te te jaadu na ñu mer ndax bañ leen di fal pour ñu fajal ñu suñu mer fompal ñu suñu ay ranqooñ moo taxoon ñu fal leen donte nag mën nañ ne xëy na euh, euh, tooguguñ fi diir bu tax ñu mën a def loolu lépp waaye nag niw ñu ñu xëy régler problème yépp ñoo ngi ci quatre mois am na taxawaay ak wax yoo xam ne boo ko defee xel du dal surtout rawatina ngay jëf te waxoo ngay jëf te wax euh, recevoir o kenn li ngay def di tëju kenn xamul ci loo nekk ñun ñi leen fal xamuñu ñoom ci lu ñu nekk duñu wax ak ñun tëju nañu recevoir ñu kenn ñi ngi def ak dindi di dem ak dikk ñun xamuñu fuñ jëm ak ñoom kumpa googu boo ci dollee nga dem assemblée yóbbu fa loi ñu rejeté ko ñu boole ko ñoom ñu ñuy tëkku léegi mais loolu askan wi Sénégal yi dañuy mer ñi ñi leen faloon dañuy mer lu jaadu la lu naturel lu normal la ki nga fal waxul ak yow xamoo fu mu jëm waxul la ci li may def dara ba ba nga ko falee ba léegi gisoo ko waxul ak yow xamul fu mu jëm waxul ak yow gisoo ko ku gi taxaw di bàkku Abdou mbaw toog ci assemblée bi di def leen neex di dem ak ñëw ñu jël seen billet d'avion yooyu di génn di dem ak a ñëw di tukki yow seen i passeport diplomatique te ñoom ñoo doon rey nit ñi ñoo doon tëj di wax lu leen neex ci kaw Ousmane Sonko ñu dem ak a dikk mais askan wi daal mais ñun liñ doon xeex lu mu doon lan lañ doon xeex ñii dute ñëpp ak ñi mer ñëpp li ngeen dutewu di am sikk sàkk seen xel yi commencé tey lu normal la bu leen ci am benn culpabilité ay nit ngeen au contraire dute boobu ngeen di dute sikk sàkk boobu ngeen di am preuve la ne yéen ñu muus ngeen ñu yeewu ngeen ñu xam li ngeen bëgg ngeen ndax bu ngeen demee ba gisatu leen lu ngeen xam seen xel yi day jiixi jaaxa kon yéen seen xel yaa ngi yëngu yéen boroomi xel ngeen yéen yéen la yàlla di waxal yéen yéen a normal donc loolu na ci am fierté te yéen ñu mel ne yéen ñooñu la Ousmane Sonko ak Jomaay soxla ay nit yoo xam ne bu ñu demee ba gis na Ousmane a ngay juum ak Jomaay seen xel yi di jiixa jaaxo ñu ñoddi Ousmane ñoddi Jomaay ne ko yéen a ngi wàcc yoon wi yoon wi fii la dellu si leen Ousmane ak Jomaay façon nit yooyu lañ soxla kon yéen ñi doon jiixi jaaxa ndax comprendre lu leen xamu leen ndax Ousmane waxul ak yéen Jomaay waxul ak yéen toogu leen moom xamu leen fu ñu jël bu ngeen demee ba loolu am ngeen seen xel yi jiixi jaaxal lu normal la na ngeen ci am fierté ndax ñu mel noonu la projet bi soxla nit ñuy xalaat di xel di teg di surveiller projet bi bu leen ci am kerse bu leen ci am ragal bu leen ci am tiit projet bi ay nit la soxla soxlawul ay dof projet bi ay xel yuy ñaw la soxla soxlawul ay tàppete ki ay nafiq kon nañ sant yàlla aussi ndax yàlla bàyyi wuñu mi ngi ànd ak ñun moo tax ñu war a góorgóorlu nit buy xeex yàlla ànd ak moom day góor góorgóorlu parce que yàlla ànd ak tax taxul nga gañe xeex de léegi-léegi naan waaye ku yàlla ànd da ngay gañe loolu bu yàqu la c'est yàlla mën naa ànd ak yow nga ñàkk xeex waaw yàlla day ànd ak yow lu leer laa wax xam nga tax yàlla buy ànd ak yow ngay perte yàlla buy ànd ak yow du la defal loo mën loo mën a def yàlla du la defal mukk loo mën a def yàlla buy ànd ak yow day topp ci sa ginnaaw ku am fulla la lépp loo xam ne mën nga koo def te defoo ko du la ko defal dalay seetaan boo defee li nga war a def yëpp ak li nga mën a def yëpp ba jeexal boo defee li nga war a def ak li nga mën a def ba jeexal yàlla moo la gën a xam li nga man ak say limite boo ko defee nag foofa lay ñëwee moom nag jàppale la defal la loo mënul waaye yàlla du la defal mukk loo man moo tax boo ànd ak yàlla di xeex na yàcc na yasal naan yàllaay def lépp yàlla day taxaw fee seetaan la da ngay ñàkk ndax du la defal loo mën a defal sa bopp ba noppi lank na doo ko def ndax lan bëggul yomb xaw ndax li may wax ngeen ko wax xaw ma li may dugg mi ngi dugg seen bopp yéen déet xaw ma waaye man li ma leen di wax lu leer nañ ci man la xaw ma ndax leer na ci seen bopp yéen. yàlla bu ànd ak yow di xeex du yàlla day ñëw yàlla du sot ndax xajul ci nit bu ànd ak yow di xeex day taxaw ki sa ginnaaw di la xool ba xam foo jëm ak looy def. ba xam yàlla bëggul ay yambar bëggul mboqat bëggul koo xam ne dangay ngay wiru rek naan yàlla yàlla yàlla bëggul mboqat bëggul yambar moo xam ne du jéem dara yàlla defal kenn dara voilà kon toog yàlla la ñu àndal da ngay ànd ak yàlla ba noppi ñàkk daanu ca ga moom mu dem de dox doxam kon nañuy farlu am le sens de l'initiative di jël ay dogal di jëf nekk ca waar wa la ñu war a def yépp ñu def ko buñ ci xeeb dara lépp lu mu laaj ñu teg ko ci kaw taabal ji ci xeex bi pour projet bi jàll bu ñu defee li ñu am yépp yàlla moo ñu gën a xam suñu bopp xam na def nañu ci yéene ci man-man ci kàttan def nañu lu ñu am ah yàlla na ah sama jaam bi de sabab lu na ba sës naa ko naa ko dimbali foofu la yàlla di ñëwee waaye yàlla duñ ne bëreet rek mu ñëw de amul yàlla duñ ci yàlla yàlla après lay ñëw du ñëw ci njalbeen loolu moom na ngeen ko xam kon bi loolu lépp weesoo léegi nag dañu nekk ci tactique politique adossée a une chronologie ndax assemblée nationale constitution bi article 86 ou 87 daf ne mën nañ ko tas gannaaw ba ñu ko tabbee ba mu am ñaari at ci lu mu néew néew néew néew bu amee ñaari at mën nañ koo daaneel dem ci ay jongante yu bees élection yu bees ba ñu ko tabbee le vingt le 31 juillet 2022 lañ ko tabboon 31 juillet bi 2022 la am ñaari at waaye am ñu ne ñaari ateel ñaari at bi nekkul ci bis bi ñu ko tabbee woon fal gi bis bi ñu falee jour élection bi bu amee ñaari at waaye jour bi nga xamee ne ci la député yi doog a dugg ci assemblée bi ñu takkal leen seeni i muy jour ouverture yu première session bi bañ leen falee le 31 juillet août commencé gu ñu liggéey le 12 septembre su ma juumul le 13 la ñuy soog a ubbi assemblée bi première session convoquée par le président de la république député yi soog a ñëw takk seen i xàpp président de la république Bassirou Diomaye fay ba mu bëggee xam. ñaari ñaari atu assemblée bi ban ban bis lay tombeel dafa demande conseil constitutionnel ne ko yow ban bis nga jàpp ne mooy bis bi ñuy jàpp ne député yi am na ñaari at bis bi ñu leen falee la wala bis bi ñu njëkkee dugg ci assemblée bi takk seeni xàpp muy le 12 xamu le 13 septembre ba mu ko demandé conseil constitutionnel conseil constitutionnel xamal ko ne ko bis bi nga xam ne ci la ñaari at ati assemblée yi di mat nekkul bis bi ñu leen falee ñoom député yi bisu élection bi waaye bis ba ñu duggee ca biir assemblée ba ndawum pénc ma di fa doog tab bi bis boobu mu le 12 xaw ma septembre bis boobu mooy bis bi nga xam ne bu amee ñaari yoon ci ci ñaari at ci la ñaari at yi mat léegi mooy 12 septembre bi xaw ma 13 septembre bi ñu jëm fii ak 8 jours fii ak une semaine mu mat léegi nag waa Benno Bokk Yaakaar. ab du mbaw Kirikou mii di ñakku cuuj jiite leen démb ca biir assemblée ba gis ngeen ba ñu waree voté loi bi ñoom dañ ne non seulement duñu voté loi au président Bassirou Diomaye bi waaye Ousmane Sonko da leen a manqué respect faalewu leen da leen ni saaga ndax dafa war a ñëw def déclaration de politique générale am nee du ko def faalewul assemblée bi faalewul lii faalewul lee yàq nañu Ousmane Sonko ñun daal Ousmane mooy seen ba bàjjen yàq nañ ko lu leen neex dégg nga poser motion de censure dañuy teg loi boo xam ne day daal gouvernement Ousmane Sonko te bu ñu ko defoon bu ñu defee nii day day aboutir de waaye comme loolu président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko xam nañ ne lii Abdou Mbow wax bu ñu ko defee gouvernement Ousmane Sonko bi day daanu day daanu parce que am nañu majorité ci assemblée pour voter ko day daanu ñu daal di koy dabu tey président Diomaye jël ñaari dogal ñaari dogal la jël tey ah, ñoom ñaar Diomaye ak Sonko xam na ne ay mbaam lañ ko séqal léegi nag il faut que yatu kel yi génn gat sa sa ah ma ne ah ok man maa ngi doon nelaw maa ngi soog a yeewu léegi nag sama gars yi xippiku nañu xim ximmaliku nañu léegi nag seen bët yi xippeeku na gat sa gat sa très bien Diomaye signé ñaari dogal benn décret ñaari décret la jël benn décret bi mooy wàccee na Aminata Mbengue Ndiaye au conseil wàccee Abdoulaye Daouda Diallo conseil économique social environnemental benn ñaareelu décret bi mu def ay projet de loi ak ay proposition de loi wala boog ab décret boo xam ne dafa am ab loi bu ñu war a promulguer am dégg nga maam benn loi de règlement bu budget deux mille vingt deux bi fi Macky Sall nekkee ba ñu defaree budget bi ba voté ko ba exécuté ko budget bi dafa am loi de finance moo koy autorisé pour ñu mën ko exécuter boo koy exécuter ba at mi jeex da ngay def ce qu'on appelle la loi de règlement mooy bilan mooy li nga xam ne mooy la ñu voté woon jox ko député yeeg état bi yëpp ñu dépensé ko ba at mi jeex. dañuy ñëw saytu ko xool ndax nañu ko voté woon ne fii la war a dugg ak fii est-ce que la ñu waxoon ne fii lay dugg dugg na fa ñu topp ko ba mu jeex yépp ne budget bi ko waroon a dugal ba ñu koy voté dugal nañ ko fa ba mu jeex léegi nañu daal di def ce qu'on appelle la loi de règlement année 2022 budget moom la ñu dugalaat boole ko tey ci décret bi danañ ko yóbbu assemblée ngir ñu mën a voté la loi de règlement muy loi xam ne mooy tëj budget 2022 boobu tey dugal nañ ko ci biir décret bi <coughs> am benn ratification bu ñu war a def ci benn convention boo xam ne sur la commission africaine de droits de l'homme comme la commission nationale de droits de l'homme benn convention bu ñu war a signer mettre ko à jour par rapport à notre arsenal juridique muy ñetteelu mbir bi ñeenteelu mbir bi muy la déclaration de politique générale bu Ousmane ko muy ñeenti poñ yoo xam ne président yóbbu na ko assemblée nationale pour ñu saytu ko en procédure en procédure extraordinaire maanaam ñu yóbbu ko assemblée ci session ex parce que session ordinaire bi jeex na session ordinaire bi tëj na fi mu toll nii lépp lu ñu def actuellement ni ci session extraordinaire lañ koy defee li tax président def loolu ak président ak premier ministre ndox ñu def ko c'est pour yàq yéen a Abdou Abdou Mbow ak Benno Bokk Yaakaar bi bëgg a daaneel gouvernement Ousmane Sonko bëgg a yàq loolu moo tax ñu def lii tey yóbbu ko ca président assemblée nationale ba jébbal ko ñeenti poñ yi président na dafa bëgg ñu xoolal ko ko ci assemblée bi votel ko ko waaye ni ñu ko agencé ni ñu ko toftalantee ci biir décret bi mujjee déclaration de politique générale Ousmane Sonko da ngay xam politiquement que c'est une tactique c'est une stratégie boo xam ne liñ ci jublu mooy motion de censure bi Abdou Mbow bëgg yëkkati député yi voté ko pour gouvernement Ousmane Sonko bi daanu moom la bañ mu am moom la président bëggul mu am premier ministre bëggul gouvernement am daanu moo tax ñu def lii. parce que boo demee ca article quatre-vingt-quatre de la constitution ba article quatre vingt de la constitution dafa wax ni bu fekkante ne. dafa am ay proposition de loi wala ay projet de loi yoo xam ne dafa ñëw ci bureau assemblée nationale jóge ci président de la république dafa wax ne président de la république ay bëgg-bëggam mooy njëkk a jàll bëgg-bëggu député yi wala président assemblée national bu leen fàtte ne Abdou Mbow moo njëkk dugal président de la république bëgg-bëggam ci bureau assemblée ba démb la déposé moom président déposé tey kon Abdou Mbow moo fa jiitu président pour ñu saytu bëgg-bëggam mooy daaneel gouvernement Ousmane Sonko démb la ko dugal président dugal tey ñeenti poñ lu tax mu def ko. parce que président dafa sukkandiku ci article bi di article 84 de la constitution buy wax ne bu fekkee dafa am ay lu ñu war a càmbar ci assemblée nationale bi ca ordre du jour ba bëgg-bëggu président bu ñëwee fekk fa bëgg-bëggu député wala Abdou Mbow bëgg-bëggu président mooy njëkk a jàll. foofu la président sukkandiku pour indi ñeenti poñ yu ñu ko war a saytul votel ko ko ci assemblée bi gannaaw ba mu fa fekkee bëgg-bëgg Abdou Mbow bi bëgg a daaneel gouvernement Ousmane Sonko kon pour faagaagal faxas yéene Abdou Mbow ba du antu moo tax président indi ñeenti poñ yoo xam ne ba ca mujj mooy bii daaneel Ousmane Sonko mooy motion de censure bi mu ko ñeenti poñ yi mujje ko ndax xam na ne session extraordinaire bi ñeenti poñ yooyu fii ak ñu di ci waxtaan bureau de assemblée nationale di ci wax. suñu paree ci bureau assemblée nationale dañuy dem yóbbu ko au niveau de la commission de lois bu ñu paree bureau commission des lois su fekkante ne comme benn bi nga xam ne mooy la la loi de règlement boobu bu demee commission des lois bu paree day dem commission des finances bu jógee commission des finance soog a ñëw plénière ñu yuuxu dóorante kenn ku nekk ñu koy soo ko voté temps boobu muy jël. ci benn poñ rek bu ñu paree ci boobu dem ci beneen bi mu jëlaat même temps bi bu ñu paree ci boobu bala ñoo agsi ci déclaration de politique générale bu Ousmane Sonko muy ñeenteelu poñ bi mujj day fekk une semaine bi weesu ñoo ngi fay le 4 buñ ci yokkee huit jours oui une semaine à peu près muy douze jours douze jours yooyu ci le président de la république soog a mën a jël décret xaatim ko daal di jël assemblée bi yóbbu ko si euh, armeelu Caaka ca Ndar mu dugal leen fa ñoom ñëpp suuli leen armée lu caaka njaay ca ndar le 12 bii est-ce que li may wax dégg ngeen ko chronologie bi ak ñi ma ko ñi ma ko taftalantee tegalante ko pour mu est-ce que leer nag seen bopp wala leerul léegi dañuy mathématique chronologie lii mooy politique de calcul du tëñëx tëñëx de du affaire u sëriñ ak daay taayal taalibe calcul la mindset la xam-xam la teg-teg yi leer na nañ très bien ah j'aime bien parce que li may effort yi may def pour mu leer maanaam pexe yi may def pour mu leer bu leerul rek musiba am comme leer na baax na kon jëruma di ko baamtuwaat kon xam ngeen lu tax président def li mu def léegi président ak premier ministre dañuy politique dañuy cabaxal parce que dañ leen tànc ci miir bi ñuy cabaxal loolu mooy politique waaw tey la kat buñ ci yokkee huit jours muy dix jours fii ak huit jours mënuñu fee voter ñeenti loi yi président bi dugal bay dem ci bu Abdou Sow Abdou Abdou Mbow bi nga xam ne moo bëgg a daaneel Ousmane ko ba dañu faa àgg àpp ba mag président woo imam bi ñu jullee leen ñoom député Benno Bokk Yaakaar yi Adji Sarr ñu yóbbu leen armée lu caaka njaay dar rob leen fa jenc leen fa kenn dootu ci waxati lii mooy galgal bi lii mooy raccantal gi lii mooy stratégie bi lii la ña ngay réunion nag mën nañoo génn suba nag fexe ba na waaw président décret bi mu jël baaxul ndax respecté wul règlement intérieur bi lii ak laag laag laa laag laag ña ngay ña ngay ña ngay réunion de mën nañoo ut ay pexe ak i virgule ay point baaxul kërë kër pour lan motion parce que ñoom xam nañ ne seen armel yaa nga caaka njaay ca ndar den xaar xam nañ ko waaye dañ ne ñoom des nee ñoom ki leen di suul day ànd ak ñoom suulaale benn tànkam ñoom dañoo bëgg ñoom bu ñuy dem armeelu caaka njaay kay suul benn tànkam des ci biir bàmmeel bi waaye ñoom xam nañ dañuy dem ci bàmmeel bi ñoom su doon dañuy yàq rek kenn duñu rey des ki ñu rey moom benn tànkam dañ koy suulaale ñoom ci loolu lañ nekk ci stratégie boobu lañ nekk kii moom benn tànk bi dafiy des ci biir bàmmeel bi waaye ñun kot duñ dem ci bàmmeel bi ñoom ñoom loolu ñoom pexe boobu lañ dese amul beneen amul beneen lii nag mooy réyal politique lii mooy science politik lii mooy xam-xam lii mooy tactique lii mooy stratégie di leen wax ne na ngeen ànd nekk benn nasu ne kurus di yëkkateendoo di tegeendoo bàyyi di ŋàññante jàppalante bu leen kenn ruur bu leen kenn jaxase ndax ànd bi ñu ànd moo ñu jox réew mi ba ñuy ànd xooluñu kii murit la kii xaadar la kii tijaan la kii laayal la kii ate la toppatoo wuñ ko dañoo àndoon di xeex ñi nekkoon ci mbedd mi di xeex amu ci kenn koy xool ne ko murit la wala xaadar la wala laayal la wala tijaan la wala joraal wala soose wala olof ñoo àndoon bokk ndey bokk baay ànd ak Ousmane Sonko ak Diomaye gëm projet bi ànd ak ñoom ñu teg ci suñu bakkan suñu alal suñu doole ba am lu ñu am. loolee ñu defoon ba am ndam lii bu ñu kenn féewule ci kii murit la kii xaadar la kii tijaan la kii laayen la kii olof la kii soosa la kii pël la kii jola lànk leen bu leen kenn dugal foofu ndax ñi leen fay bëgg a dugal ay politiciens yu perte lañ te Sénégal moo jur murit moo jur xaadir moo jur laayeen moo jur wolof moo jur pël moo jur joola senegal googu nga xam ne mooy jur ñëpp wala tëddee njaaxaanaay képp ku jóg ak foo mën a bokk di yëkkati loola nga bokk bëgg koo teg ci kaw senegal yow ci ñiy taal senegal ci nga bokk ci ñiy tas Sénégal ci nga bokk ci ñi bëgg Sénégal yi reyante génn ay fetal taal réew mi ci nga bokk yow moo tax bu leen leen topp réew mi nag. gënoon na fee metti teen bi gënoon na fee metti ma root rootaaleel la xam naa goney tey yi xamuñu li may wax yaa ju ak ngate teen bi gënoon na fee déeg ma root rootaaleel la comme léegi teen bi am na ndox te ñun ñi ñoo tax teen bi am ndox waaye waaye ngal la bu ñu ko yàq bu ñu kenn jaxase réew mi day baax de day dem Sénégal day dem te ñun ñoo koy yóbbu bu ñu kenn jaxase ah yaa xànjoog yàndate bu ñu kenn jaxase laa wax réew mi léegi ay marichua fa am ki ay ay ay ay ay xaw ma nan prod ay seen yëfu tappale caaxaan yàq nañ réew mi yëpp ndax RTS Pape Alé Niang war a def émission yu baax indi waa daaree ko ca jamonoy tey tey gis naa président Ousmane Sonko du mu ubbi cinéma ñu indi dégg mam histoire Souleymane Bal macha allah di féliciter le premier ministre Ousmane Sonko voilà dama am mbégte tey bi ma ko gisee mu ñëw dans le théâtre man loolu laa xam c'est ça le projet le projet il est culturel la révolution culturelle moo tax on félicite du fond du cœur le premier ministre Ousmane Sonko c'est un geste fort parce que man dama gëm symbolique dama gëm sociologie dama gëm culture parce que développement c'est la culture d'abord moo bi mu demee di inaugurer la salle de théâtre cinéma ñu dawal benn pro benn film sur le Thierno Souleymane Baal voilà loolu lañ soxla mais ay Marie Prod xaw ma ay Marie yu mais ay yu je je ne connais pas ces gens là ça c'est pas des films arrêtez ñi ngi jikko xale yi ñi ngi théâtre dafa am solo Gelawaar Ousmane Sembène Daaray Kocc ñun suñu génération dañ daan toog ci télé bi mais nekk école di jàng ci télé yi Pape Alé Niang RTS guddeeg bëccëg way fecc guddi ak bëccëg ça suffit ut leen ay programme des théâtres des sketchs des films la le développement c'est la culture du développement d'abord il faut développer la culture développement pour aboutir au développement de la culture jël leen budget alal ji ngeen financer ci ay projet de révolution culturelle et sociologique bon sang oh en tout cas maa ngi féliciter le premier ministre Ousmane Sonko tey kenn waxu ci parce que on est en politique mais acte bu fort la posé cinéma Thierno Souleymane Baal vous vous rendez compte c'est du jamais vu te loolu la ñuy xaar ci Sénégal gépp mu am ay théâtre ñuy créer ay troupe de théâtre yuy wër Sénégal ñu leen di mettre de l'argent dans la culture dellu ci ci suñu maam yi di def ay culture populaire théâtre populaire dem ci benn dëkk kaw takk ay dara projeté film bi waa kaw gu génn toog guddi gi bu timisee ñëpp seetaan ñu génn maam yi nu ñu daan béy nu mais loolu mooy aada chinois yi révolution Bassirou Diomaye Faye tey ma nga Chine le président ma nga Chine ànd ak délégation bu ngand gis ngeen ni ko chinois yi teertoo ci seen aada ak seen cosaan développé ki seen culture mbokk yi nañu ubbi suñu bët yi ñu xool boo demee Japon noonu lañ def lii mooy projet bi macha allah le premier ministre Ousmane Sonko macha allah le président Diomaye nga ko mu ànd ak madame la première dame ñu def seen bleu de nuit bu baax macha allah première daa d'ailleurs duma ci wax mais tey il faut wax ci parce que première dame tey dafa sanse maanaam dafa xam nga tag gi may tagg première dame tagguma ko ngi jëmmam parce que xaw ma ko mu ànd ak Diomaye li may wax ci ñoom di ko rafetlu du seen jëmm yi moo tax ma koy wax mais Sénégal la ñuy yëkkati moo tax bu ñu defee loo xam ne tamit baaxul dama koy wax parce que ñoom seen jëf ju baax mbubbu Sénégal la seen jëf ju ñaaw mbubbu Sénégal la moo tax bu rafetee rek Sénégal mooy am taar bu ñaawee Sénégal mooy ñaaw moo tax léeg-léeg ma ci wax ñaaw ma yow da ngay gérer ay détails yow li ngay toppatoo ñooy yéen Sénégal le Sénégal est une très belle femme courtisée par le monde entier elle doit éternellement être une belle femme ci sent bon c'est l'image du Sénégal suñu moom la président di incarné ak soxnaam moo tax tey bi ma leen gisee ñu dem Chine première dame solo macha allah taxawaay posture bi droiture bi la posture la prestance l'élégance tout ça participe de la grandeur de notre nation le Sénégal qui est grand mais loolu la mënu ko xam làppato mënu ko xam moo tax plus le président def ay effort dans le verbe dans l'accaudrement, dans l'allure, dans l'élégance, dans la galanterie avec Madame la Première Dame. Parce que gis naa ko bi mu dugg ci avion bi keroog dafa jékki-jékki dugg Madame topp ci ginnaawam non moi je ferai pas ça je je monte avec Madame je lui tiens la main bu ñu ñëwee ba taxaw le président tourne pour dire au revoir il lève la main su paree def benn geste Madame allez-y daal di dugal Madame jiital Madame galanterie ça c'est l'élégance c'est la diplomatie sénégalaise le monde entier regarde le président qui prend soin de sa femme, qui traite sa femme au petit soin. deful lu ko jabaram ko defal c'est l'image Sénégal notre président est galant il est attentionné il prend soin de la femme sa femme au sens figuré mais il prend soin du Sénégal au sens au sens figuré mais il prend soin de sa femme parce que prendre soin de sa femme c'est prendre soin du Sénégal c'est la galanterie mais soo koy wax waaye yow ay détails nga toppatoo waaye ñun toppatoo ñu président nu muy solo toppatoo ñu ay costume am daal amaluñu njëriñ làkk tubaab ah, yi bi làkk suñu yoon nekku ci waaye bu luyoo bu bu bu bu bu kàjjee jabar gi suñu yoon nekku ci un état ne fonctionne pas comme ça un état c'est du sérieux tout est quand j'ai vu l'image c'est une très belle image Et l'image, ce n'est pas le président et sa femme. C'est le Sénégal qui est beau. Le président doit faire énormément d'efforts, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko et tout le gouvernement. C'est une position, c'est une posture, c'est une fréquentation, c'est un verbe, c'est un accoutrement, c'est une gestuelle, c'est une fréquentation. Tout ça, c'est le Sénégal. Attention! Attention, je suis extrêmement regardant sur ce détail-là. Je suis très pointu sur les détails protocolaires. Parce que c'est pas l'abondance qui fait la beauté, mais c'est la rareté qui fait non seulement la beauté, mais qui fait la valeur. Tout ce qui est abondant n'a pas de valeur. C'est ce qui est rare qui a de la valeur. Et le diable est dans le détail. Le détail est quelque chose qui est insignifiant, mais qui est important dans le grand tout. Dans le grand tout, il y a le petit rien. Et ce petit rien-là ne doit pas manquer dans le grand tout pour tendre vers la perfection. loolu nag éducation la loolu jaar-jaar la loolu loolu yar la loolu ay waajur la loolu dund la du ñëpp ko am moo tax léegi-léeg nga wax ñu saaga la ci loolu mais dangay xam ne euh, fi mu jaar-jaaram moo tax muy saaga mais xamul li ngay wax ndax doo fekk kuy dem nga ko sa costume bi sa lee déedéet kuy romb ci mbedd mi sama yónne ko su ma koy détaillé ci premier ministre ak gouvernement ak Bassirou Diomaye Faye ak waa këram su ma koy def ci ñoom toppatoo du ko ci Macky Sall Macky Sall ak ñoom ministre Macky Sall yi da ngeen a ma may toppatoo seen détail nekkatuñ fi bu su fi Diomaye jógee ak Sonko dootuma ko topp ci ñoom kon lii tax li ma koy toppee ci ñoom du seen jëmm yi Sénégal a tax ma di ko topp ci ñoom bis bu ñu noppee wàcc Sénégal dootuma leen topp ci détail yooyu kon ngeen xam ne seen jëmm yi taxul ma di ko wax Sénégal bi nga xam ne dañ ko war a sang ba mu set di ko solal di ko diw ba mu niin defal ko parfum yi gën a neex nga xam ne ku gis Sénégal kontaan ngeen sagu ma sagu ñëpp sagu Sénégal googu moo tax may topp détail yooyu c'est extrêmement important kon mbokk yi li ma leen di tëjalee waxtaan wi mooy bu leen kenn jaxase kenn ab famille lañu njaboot lañu di njabootu président Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye di njabootu projet bi kii di làkk pël kii di làkk joolaa kii di làkk soose kii di làkk mandeng kii di làkk wolof kii di làkk kii di làkk kii di làkk loolu tàqalewuñu ak njaboot lañu gu Ousmane Sonko njaboote ak président Diomaye ñii nekk murit ñii xaadir ñii laayeen ñii euh, athée ñii katolik catholique ñii lépp ñu ànd nekk benn ngal la loolu nañu ko sàmm bu ñu kenn jaxase bu ñu kenn jaxase bu ñu kenn boole kenn rawatina ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ànd sàcc yi ba daanu bëgg ñoo jaxase ci feewuloo ci tariqa bëgg ñoo jaxasaloo ci diine bëgg ñoo jaxasaloo ci mbokk bëgg ñoo jaxase ci yu kenn xamul ngir réew mi tàkk ba kenn du tal jubbanti ak joyanti gi nga xam ne ñoom ñoo yàq réew mi kenn du tal milliards yi sàcc ci réew mi ñu war koo jëli ñoom dañoo bëgg réew mi tàkk ci tarixa réew mi tàkk ci ay waaso réew mi tàkk ci lépp ba ñun ñi doon xeex duñu am jotu ñoom ñooñu def musiba gi jàpp leen nangu alal gi tëj leen ci kaso yi loolu lañ bëgg de ñoom ñooy ruube ak seen média yi ak seen presse bi ñoo nekk ci ginnaaw di ruube lànk leen loolu lànk leen ko de li ma leen di wax lu ma xama xama xam waaw kon ah ñu ngi wure premier président premier ministre ñu ngi wure assemblée ngi wure am na ñoo xam ne ña nga sëgu saaka njaay di gas bàmmeel yi waaw 83 bàmmeel sëgu saaka njaay saaka njaay ca dëkku Mansour Faye ñu nga fay ges 83 bàmmeel waaw jàppaleen lool caaka jaay ndar waaw waaw lu leer laa leen wax ñu waajal préparé wu xam ne ci ay élection lañ jëm léegi bu ñu tasee assemblée bi le 12 constitution bi daf ne décret dogal bi koy tas ci biir dogal boobu dañ ci jàppale bis bi ñu war a demee élection jongante ngir am assemblée bu bees constitution bi teg ci ne lu mu yéex yéex yéex ñaari weer yi ci topp war nañ ci am élection lu mu néew néew néew lu mu yàgg yàgg yàgg ñetti weer yi ci topp war nañoo am élection ndax duñ la bàyyi nga tas assemblée bi rek ñu taxaw di la xaar ba saa su la neexee ngay organiser élection pour ñu am député yi bees constitution bi nga xam ne mooy saytu réew mi def na yow miy tas assemblée bi président décret bi koy tas dogal bi ci biir dogal boobu ci ngay nattee bis bi ñu war a demee jogante te wut weesu bu néewee ba néew du génn ñaari weer yi yi ci topp bu baree ba bari mun a génn ñetti weer yi ci topp kon bu ñu tasee assemblée bi le 12 septembre le 12 novembre war nañoo am élection législative. ci ñaari weer yi bu fekkee dañ ko bëgg def ci ñaari weer le 12 novembre buñ ko bëgg a def ñetti weer yi au plus tard le 12 décembre 2025 war nañoo am élection législative mooy bu guddee ba gudd le 12 décembre le 12 janvier 2025 bu gàttee ba gàtt le 12 novembre 2024 bi muy ñaari weer yi nga xam ne moo ci topp war nañ cee tabbaat ay député yu bees ci assemblée bi léegi bu fekkee dañoo organiser élection yi ci ñaari weer yi ci topp 12 septembre 12 octobre 12 octobre 12 novembre mu ñaari weer yi nga xam ne bu néewee ba néew war nañ ko ci amal bu guddee bu guddee war naa dem ci ñetti weer bu ko defee ñaari weer yi kon le 12 novembre war nañoo def élection buñ defee élection fi ak le 12 novembre dañuy am député yu bees bu ñu amee député yu bees il faut que président jël décret convoqué. pour ñu mën a indi député yi la rentrée pour ñu mën a ñëw bu député yi ñëwee mooy la première session parce que session ordinaire bi en temps normal euh, mi octobre lay commencé premier quinzaine octobre mais comme dañoo tas assemblée bi octobre du fekk assemblée bi kon rentrée assemblée bi après élection novembre de 12 euh, novembre bi la donc de rentrée boobu président moo koy convoqué bu ñu defee élection yi ba noppi rek ci semaine bi. président man na convoquer assemblée national ñu ubbi la session ordinaire bu ñu defee le 12 par exemple bon attends il faut que ma xool suma calendrier xool ba xam le 12 ça tombe ci ban jour parce que dañoo war a précis léegi ay calcul la ngeen may ma ma xool le 12 voilà léegi buñ demee septembre octobre novembre le 12 novembre c'est un mardi léegi kon mën nañ jàpp ne élection yi mën nañ ko def deux mois minimum la ñu wax ak trois mois maximum kon élection yi du am le 12 novembre kon mën nañ jàpp ne élection yi le 17 novembre lay am dimanche 17 novembre la ñuy def élection ndax minimum bi deux mois la te bu ñu tasee assemblée bi le 12 septembre 12 octobre 12 octobre 12 novembre comme 12 novembre bi benn mardi lay tombeel mooy deux mois yi te mënoo def élection yi ci biir deux mois yi parce que au minimum deux mois à moins que ñu mën ko def ci biir deux mois bi suñ ko mën a ci biir deux mois bi kon élection bi mën nañ ko def le 10 novembre buñ ko deful le dix novembre def ko le 17 novembre ñaari dat yooyu noté leen ko bu baax bu ñu tasee assemblée bi le 12 bii élection législative yi le 10 novembre lañ koy amal wala le 17 novembre suñ ko tasee le 12 septembre bi jàpp leen le 12 novembre c'est un jeudi non le 12 novembre c'est un mardi à moins que man ma juum non waaw le 12 bi le waaw le 12 bii le 12 septembre c'est un jeudi mais à partir de jeudi boobu 12 novembre 12 septembre 12 octobre 12 octobre douze novembre boobu laay wax douze novembre mois jour bi mi am deux mois c'est un mardi 12 novembre c'est un mardi voilà te mardi mënuñu def élection soit dañ koy def le 10 avant le 12 bi novembre wala ñu def ko le sept novembre suñ ko defee le 10 novembre élection yi législative wala ñu def ko le 17 novembre il faut nga compter encore peut-être une semaine pour que résultat yi génn tout ça ñu def promulgation yi kon booy xool le 17 su fekkee élection yi am na novembre le 24 lay am une semaine le 1er novembre mu am deux semaines président man na convoquer les députés à partir de la dernière semaine du mois de novembre mu deuxième semaine après élection yi semaine du 25 au premier mu convoquer l'ouverture de la session ordinaire bi nga xam ne député yu bees ci dañuy ñëw parce que la loi de finance bi war a voté budget bi il faut ñu voté ko avant le 31 décembre 2024 pour le budget 2025 kon daañu am un mois pour voter la loi de finance initiale pour le budget 2025 kon fii ba fin novembre war naa fekk député yu bees yi installé wu dugg ci assemblée bi premier décembre ñu commencé le marathon budgétaire pour un mois yi nga xam ne moom lañ prévoir pour la loi de finances initiale qui consacre l'adoption du budget 2025 pour ñu mën ko voter avant le 31 décembre 1er janvier 2025 ñu am suñu loi de finances bu bees boo xam ne ce soit ce sera la loi de finances du projet est-ce que leer na li may wax est na faram fàcce yi est-ce que leer na élection législative yi ce sera le ou le novembre résultat yi génn la semaine qui suit avant fin novembre les députés doivent être installés dans l'hémicycle pour que ñu mën a commencer la la loi de finances 2025 sur le mois de décembre pour que avant le 31 décembre que la loi de finances soit adoptée voilà lii man maa leen ko ameel explique jox leen ay éléments ngeen mën a def ay projection ngeen mën a waajal daas fataanal xam fi ñu jëm loolu maa leen ko ameel voilà kon lii mooy perspective yi ngeen téye ko seetaan nag di xool ñii wure ñi ngi wure ñu war a dem sëggu saaka njaay xam nañ ko Ousmane Sonko wax na ko tey nee na motion de censure du am bi wax man jaaxaloon na ma Ousmane fan la teg ne motion de censure bi du am sama xel demoon na ci lenn mooy li ma jàppan mooy dañ koy convoqué parce que suñ ko convoqué dafa war a wuy mais dama jàppoon ne bu ñu ko convoqué man na opposé wu ne jour bi ñu ko convoqué wala date bi du ko arrangé moom parce que premier ministre la bu ñu ko convoqué dafa war a dem mais dem gi tamit du force il faut que mu xool ci calendrier mu xool ban jour moo ko arrangé ak ban jour parce que premier ministre dafa am liggéey as constitution def na bu ko assemblée bi wooye dafa war a dem wuy ñu koy questionné mu toll waaye dama lay convoqué danga maa war a ñëw wuy si bu ma jàppee du ma la wuy si dama naan la jour bi nga ma convoqué mënu ma ko bis bi laa ko man damay xool sama agenda xool na bis bi daal mën na laa wuy si wuy si gi moom force la waaye tey nga may wuy si moom du force maay xool ak sa disponibilité ak sama disponibilité ma jàppoon ne Ousmane foofu lay dugg def dilatoire ne agendaam dafa fees ngir mën a jege li nga xam ne mooy le 12 bi nga xam ne fii ak la 12 bu layee na sama agenda dafa chargé mënumaa ñëw mënuñu ko forcer ñoom dañ na ko rek buñ la convoqué da ngay ñëw waaye waxuñu ne buñ la convoqué da war a ñëw ci semaine bi da war a ñëw ci jour bi wala da war a ñëw ci saase da war a wuy ji lañ la wax wuy ji bi nag ci yow la aju bu la neexee nga ñëw dans fukki fan buñ la convoqué nga ne man mënumaa ñëw tey fii ak 10 jours loolu loolu lu ñuy organiser la man damaa foogoon ne foofu la Ousmane Sonko teg ne motion de censure bi du am foofu laa ko tegoon ndekete bu yàgg ci article 84 de la constitution bi nga xam ne président su député yi bëggee président bëgg ci benn ordre du président bëgg-bëggam moom la ñuy jàllale en priorité mu indi ñeenti poñ li tax mu indi ñeenti poñ mujjee bu Ousmane Sonko déclaration de politique générale parce que motion de censure bi la bañ mu jàll moo tax ñu mujj ko ndax bala ñu caa agsi assemblée bi dem sëgu caaka njaay ah, ah oui kon mbokk yi gëj nañoo déggante lool. ñu bari woon nañ ma imaam lii imaam lee professeur man tur bu nekk la ngeen may woowee imaam tur bu nekk ngeen may woowee man am naa fukki tur juróom bay damay sax réer léeg-léeg ñii ne nañ imaam laa ñii ne professeur laa ñii ne loolu lay dégg làppato am na ñu ma tudd sax làppato <coughs> waaye dama ne woon tekk rek di xool di observer gëj nañu waxtaan lool gëj naa ci réseau yi lool nag doon seetaan waaye bu ñu ñëwee rek mu mel ne mosuñu fee gëj kon gis ngeen ko na woon fa woon nañ ko daan defee rek dara soppikuwu fi tey lañ gën a taxaw tey lañ gën a am détermination tey lañ gën a engagé wu tey lañ gën a takku taxaw tey lañ gën a pare pour dee pour que président jomaay ak président premier Ousmane ko réussir parce que seen réussite mooy bu Sénégal waaw lu doon def démb ba muy metti fukk ay junni lañuy def dara soppiku fi li ñu neex ak li ñu naqar yépp du tax ñu bàyyi projet bi dañuy toog ànd ak ñoom ba mu soppiku soppi Sénégal incha allahu rabbi te loolu day am ngeen waajal seen bopp ñi war a dem assemblée député yu bees yi nañu am parce que rupture la ñu woote gis ngeen li xew assemblée bi bëgg dem gis ngeen jigéen ñi ah mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel loolu gàcce Sénégal dafa war a jógee di invité di ñaan le premier ministre Ousmane Sonko le président Bassirou Diomaye Faye ñu def des choix de qualité pour les futurs députés de l'Assemblée nationale la première Assemblée nationale de qualité et de rupture du Sénégal depuis 1960 doit être une Assemblée nationale composée des députés yu am xam-xam yu am diplomatie yu xam texte yi xam procédure yi nga xam ne bu ñu waxee siggil Sénégal ba Sénégal Sénégal ba léegi mësuñoo am assemblée bu mel noonu dañuy xëccoo ko par parloo donc rupture bi ñuy woote Sénégal bu bees bi ñuy woote projet bi bokk na ci ñu am assemblée bu bees tàq boo xam ne c'est une nouvelle assemblée bu Sénégal musta am ci qualité ci débat ci procédure ci taxaw ci proposition de loi loolu ñi ngi ci ñoom sax je les connais seen mindset seen état d'esprit premier ministre ak président Diomaye ñoom ci loolu la ñuy dox ñi ngi ñaan yàlla ñu am une assemblée nationale extrêmement puissante en termes de qualité de proposition de loi incha allah j'espère prions nañ leen ko ñaan loolu bañ a am loolu am plutôt ñu bañ tànn rek ci comme ni ñu ko defee Sénégal yéen a ma gën a xam am politique dañuy tànn rek gëm wi nañ jël kii xëccoo kenn nañu xool ñi ñu war a yóbbu ci assemblée bi mu nekk ñu gëm projet bi nekk ñu am conviction ñu am loyauté mais ñu am xam-xam am science pour mën leen a accompagner c'est important ci projet bi la bokk. kon ñu ngi leen di ñaanal di sàkku ñaan ci yéen di ñaan yàlla mu yëkkati Sénégal. sàmm Sénégal aar Sénégal ak doomi Sénégal yëkkati ko ba àdduna bi yëpp ñànk Sénégal réew mu ndaw la ci taay waaye réew mu rëy la ci yàlla ak ci population yu xarañ loolu bu ñu ko yàq nañu àndandoo nasoondoo bañu a déglu kenn dinaa ñëwaat su ko laajee ci jamono yi live spécial sur la diplomatie sénégalaise dans un contexte sous-régional de l'AES avec l'implication des superpuissances occidentales et russes dinaa ñëw dafa leen ci live géopolitiquement explique leen les enjeux contrairement ak ñi bari di ñuy wax les panafricains la ñam si dof yooyu ku nekk di wax ñoom ñëpp dinaa ñëw toog fii ak yéen ñu benn benn ko ràcc ma expliquer leen ne ñoom ils n'ont rien compris c'est des c'est des c'est des marchands d'illusions ils ne sont pas dans la science incha allahu rabbi du noonu di leen ñaan ngeen fanaan jàmm yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot yàlla indi xéewal ci réew mi yàlla sàmm aar président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko ak gouvernement yàlla aar projet bi sàmm ñu sàmm leen ànd ak ñun ci xeex bi dëgëral ñu ba kenn du ñu mën a faagaagal ba kenn du ñu mën a féewale ba kenn du ñu jaxase ndax réew mi tamit bari na ñoo xam ne bu ñu xëyee ñu ngi yàq te ngeen waajal nag la reddition de comptes premier ministre annoncé ko ah yi génn. waxuma xaj yi mbaw de xaj yi matte yi frontière bu kenn jàll borom caayo yi forox yi xaj yi na génn borom xaj yi sàmm yi génn leen xaj yi jaas yi na génn na ñëpp kenn taxaw leen ci frontière yi bu kenn rëcc frontière yu Gambie frontière yu surtout nag frontière yu Mauritanie bu kenn jéggi dex gi dañu jàpp sàcc de jàpp sàcc gu méttee méttee méttee lañ nar a def ak campagne bu méttee méttee méttee méttee waajal leen de jóg leen waaj jóg leen waaj asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu leen jëf